yaa ngi ci kër goo xamante ne si xale yi dañoo mën ruur waaw fii nii am na ay caga bu góor bu jigéen nag am na ay fenkat am na ñoo xamante ne si ay couleur de jupon la waaye nag yooyu yëpp sax nag amul solo ndax man moom xam naa ni am naa fulla gu toll ni man bu ma waxee ma bokk la sexal la mboq di la dóori dara mboq say kanam mboq ba nga mboq. loolu de xamal naa waaw yooyu moom du du du du la jéggi pour waaye Eva. Eva yóbbu nga ma sa bu ne. defal nga ma teraanga bu ne. nag. waaye nag bu lëkk-lëkkee olof na ko gërëmee ci looloo olof Njaay wax. waaye ak ma mën a defante ak ma bandi. maa yor bu bari doole. laaj ma ko ren ma ko am na xaalis. dof la bëgg na jigéen daa faible moom moom nay xool say lèvre di niin rek. yow waaye ah xanaa du ma validé. mooy yow lu koy xas romb dem ci leneen. xool sa réaction xàmmeewu ma ko de mosoo ma mel nii de xam naa da ngaa sous samay wax wuy ma wuy ma wuy ma. du am njëriñ bàyyi ma wax ma. waaw yow man man ñàkk fay dalaa nga trompé. boobu nga gëlëm de. Hmm. tay la nga de. man xoolal am na ma ci mbaraan daal. man xam naa sa capacité xam naa fi nga toll waaye dama lay wax barke unité bi barke sama jëkkëru yaay dafa am xaalis maanaam muy muy muy pëñ ñuul yooyu ñi nga xamante ne duñ sangu di yor ay milliards buñ feebaree duñ ci yëkkati fi ki dërëm faj seen bopp éleveur de bu mu toolal ay xaru du mag ak war a yor ci kaw. éleveur yow démb laa ko dégg muy waxaale xaru 2 millions. 200 jënd gi ñëw nii. wa ah. ma nekk borom kër. <laughs> xam na ma xam naa la jàpp ko ci point wan ko say lèvres yu niin génn sa benn ci su ween ko dugalaat. yaa waaw. lu ma yëngal yow. daa feebul. waa yow daal leer ma ci duggee daal dinaa ci la tegal axe du ma la wan yoon booy jaar. Eh, xam nga ay pion xam nga fi muy tëddee. bu baax te nag musul sol silib nag. caay kese lay soo romb ko rek yow romb ko rek boole say affaire. da lay may li mu yor cëga la te jigéen. yaa sama domaine xam nga loolu. tabaski baa ngi ñëw de. te xam nga ni su may dem koros mangu ñaar war a yóbbaale. waaw loolu fi mu maa yow kay mel nekk na. man kay ñàkk xam laa doon jooy mais comme xam naa ko nii ma ne sa poche fees na dellu yaa yow nekkati yoonu mu jàmbi nii wala neexee jiitu ma. Thiès Thiès fii yaa ak sa ñooñu nga luy kër gi ma ne foofu ak sa gan yooyu luy kër ni kii boo woo nekk na sàmm maa ngi. kii nii bon même ma. da nga fi xanaa de waxuma tas may toog. gàll bi yow boo xamoon yo yow yow nu may def. yow laa gën a bañ ci gàll bi. dëgg dëgg yàlla. yow neexoo da nga bëri biir wi. ok yow tooñoo ma sax kii yow ma dara lu ma lay 흑인이? 봐봐. 봐봐. 그럼 안나 할래. 할래. 또 ba ci mooy woor. ci mooy leen xoolal wax ji du gudd wax ju gàtt la te naw man yéen aw ma dara lu ma leen di rapproché aw ma lu may wax ak yéen kii laay waxal parce que bi ngay jógee ci mbedd mi di ñëw sa ñuulaay ni ma da nga bëgg gaale ma luye la gaale nga surluye ko depuis loolu maa ngi i laaj suma jiis maa ngi lay laaj suma xaalis nga jéem a dof dof naa ay ay levain kenn xamul rek xoolal toro c'est toro maslaa bi moo jeex sama maani laa soxla ok grave ngi jégalu nga baal bi yaa moom nii quoi beneen la gaale bi sama gaale famille da ngay xaar. gàlle bi sama gàlle papa maay taaw ma lañ ciy teg. seere ko dëgg la instant yi tabaski bi ñëw na. waaw a yónnee xaalis. dëgg loolu maa ngi ko sama xaalis muy dof dof. tout seet kon gannaaw yow man su ma jóomul nii gàlle bi nii yow moom moo ko quoi ko wóolu wekk wan dugg daal. eh ah gàllankoor ah. ko de. Hmm. kooku wax ne leen waa man man man man moom ma fi dara wax naa leen ko am. grand xam nga da ngay ma tey yow. yow dina la lëm. waaw père. non bu ma xool waaye bu ma xool yow. nga nga léegi lu ñuy def. ku wax grand. yow yàlla dogal na ni nee ko ak sama ñun nag wax dëgg yàlla heure bi ñu daan fay la ñuy fay ñun dañu doon ñu doon imposer. mais ñun dañoo dem ba benn instant ne ñun bu ñu amee lañ lay fay. ak bu ñu ko a fayee. parce que ñu am fuñ jaar. parce que dégg naa la xamal leen. waaw su ma ci buggee dina neex. ah non yow moom ala. su ma ci ko sama bopp. waaw nan la. man de man de dama ci wax la. yéen kay a ngi noonu. mën nga ci mën nga caa. bu Case. kon fifty cent bi toog mu kër gi. waaw waaw ah, sa affiche bi daal doon waa états may laaj. yooyu yëpp waxuma ko sax xale yi ñoom li ñuy wax ak man li may man soo xoolee sama jëmm rek li na faan kenn du ko jeex man bala maa fay faaw ma ne der ñamax ñamax yi ñu mux ñamax yi def ay daagu daagu dëggeen bàyyi doo ma fay te sax man su may néew ci yow saa maa ngi dégg sa teg si nga naan su may néew ci kon mënoo waaw kii bu ñu waxtaan pare nga gis may sax jordal mbàkk la la wala eh. wax lenn nag laa lay waxal eh si gëf gi nga xool ma xam nga mosoo gis sama bopp ne. ma laa doon wax mbay mi ma la ko jox leen xaalis bi jàmm ndax kii kilifa la fi mu dëkk kenn yàggu ko fi maintenant doo leen ma yem loolu laa leen wax. si gëf xool ma cas cas eh ma eh yow ma lay lekk naa ma xoolal sama xaalis leen laa la ci wax eh. dama koo soxla yaa ngi dégg. suba damaa bëgg nga xësal leen ñu jox ma sama xaalis dégg nga waaw kay mu nga